أنكر بانقلاب Thiam ñu ngi leen ziar di jiital ci nuyoo bi ak ci ziar bi Cheikh Mouhamadou Mountakha xalifa général bi Mouride di ko ñaanal mu yàgg fii lool te ànd ak ñoom dañu yéene liggéey Serigne Touba ci yooyu ak ci diine ji mu amee ko ni mu ko bëggee di ko ñaanal Serigne Mamor Serigne Bakki xalifa Cheikh Massamba di ko ñaanal mu yàgg fii lool te wér ba li mu yéene liggéey <coughs> bàyyam ba ak Serigne Touba ci yooyu moom ko bëggee ak ci diine ji ginnaaw loolu ñu ngi ziar Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Mahamadan yor kàddu njaboot Cheikh Massamba mu jiite njaboot gi di ji taxawaay jiite jotaay bi ñu nekk tey nag li ñu tax a ñoo ngi fii ci Daaru Karim pentum Cheikh Massamba ci ndigalu Serigne Mamour Anta Sali ñu war fee am liggéey bu am solo bu ñu war a taxawee tàmbalee ko muy fas taxawal yoon wi mu jógee fii ci yoonu Darou si jëm ca pencum Cheikh Moussa Amar ginnaaw loolu nag benn entreprise bu ñuy wax CRBC euh, entreprise la moom moo bu ñu ràññee la ci réew mi ndax moo liggéeyoon Ila Touba bi moom moo war a amal liggéey boobu ci loolu nag euh, Serigne Abdoul Ahad Mbacke ni suñu Cheikh gën a faat moo fi teewal euh, jiitu réew mi dina fi jël kàddu am na it euh, kilifa gi fi teew la Ageroute mi ngi fi dina jël kàddu dina leeral liggéey bi ci ñaata na mu war a bindoo na muy dox ak a jaar fépp bu loolu jeexee bi ak taxawaay bi ci waa am ñëpp. soo allah kon kàddu yooyu lañ ci war a war lañ war a xam naa dañuy jox sëriñ Abdoulaye Hat moom sëriñ Cheikh Baye Fatma. sëriñ Cheikh yow ak sarak yi fi nekk. ak seen njaboot gi ak mboolem njaboot yëpp Cheikh Massamba yëpp. ñu leen di nuyu di leen sant di leen gërëm. leen yóbbante nuyoo sell. ci sunu maam. di sëriñ Mam Mor boo gisee nag ni ñu fi ñëwee ànd ak waa ajur te pour teewal leen fi ak waa entreprise nga xam ne ñooy liggéey liggéey bi foog naa ne loolu ñépp dinañ am mbégte ndax lii dafa nekkoon loo xam ne ñor Cheikh Mamadou Mountakha la mu dénkoon ko sëriñ Bassirou mu dox ci ak njiitu réew mi mu joxe ci ay instruction yoo xam ne nu mu gën a gaawee noonu la ko ne ba tax tey ji nag ñu teew fi ngir tàmbali yoon bi nga xamante ne bii wenn yoon waru ko woon a njëkk waaye xëy na doomu aadama mënut a def lu suñu borom dogal ndax yoonu jëm kër Cheikh Massamba amul benn yoon boo xam ne moo ko gën a farata fii ci biir Touba rawatina fii ci Daaru Karim la nga xam ne dañ ko sañtoon ci déglu sëriñ bi kon bu ñuy def li tey jii ñëpp ci am mbégte njiitu réew mi nga xam ne moo ci joxe ndigal suñu borom defal na ko tawfeex ndax lii mu def dafa ñëw doon na ko ci li nga xam ne doon na ko def ci dëkk bi muy ay yoon ay hôpital hôpital baa ngi ñu yu bëri yoo xam ne sax jottali loolu lépp itam koy def di ko def ngir jëmmi sëriñ bi sëriñ boobu aussi di Cheikh moom mu taxaa amul lu dul bokk yi waxtu wu nekk bokk yi lay taxawu yitte bokk yi moo di yitteem amul lenn loo xam ne dana ko wax président loo xam ne jëm ci moom wala mu jëm njabootu boppam. Mm-hmm. Mm-hmm. njabootu sëriñ bi rek moo ko moo ko ñor moo ko yitee mm-hmm. kon loolu moo sabab mbégte nii ba tey ji ñëw teew fi teew fi ci turam teew fi ci turu sëriñ Bass teew fi aussi kon daal ñëw na ngir jëbbal leen liggéey bi di leen tekki loxo yoo xam ne loxo yu ko mate la ndax Ageroute li mu liggéey ci dëkk bi bari na te moom bu jëlee léegi kàddu dana wax lépp loo xam ne aju na ci liggéey bi kon foog naa ne dara leen naqar loo xamante ne bii di nga ko am xanaa rek di sàkku ci yéen ak jàpp ndal boo xam ne day jëm ci entreprise bi liggéey ak ñoom ñi nga xam ne ñoo leen fi indi ndax xam nga gan moom day day day gumba gëlëm da ko yomb kon nag bu sañoon ngeen gunge leen ànd ak ñoom ba bépp jàpp dal boo xam ne mën ngeen mën ngeen leen ko defal ba yomb ba yombal liggéey bi ba seen nekk fii gën a jàppandi mhm. loolu aussi ñu ngi koy sàkku ci yéen te kenn nga xam ne teraanga moom ko suñu tubaab la fekk baax te fii mooy fi jiitu ci kër suñu tubaab xel dal na ci amul ci benn xel yàlla mhm, mhm. kon Mbàkke ñu ngi sant ñu ngi lay gërëm di ñëw nag kon léegi lépp teg nañ ko toxul ajuru bàyyi leen ak ñoom te amul benn sikki sàkk ne du ngeen ci am leen na naqar ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di beral nuyoo nag suñu mbokk monsieur le maire Serigne Cheikh Mbacke nga xam dañoo bokk di liggéey fee ci maire yi mu fay jàmbaar. Mm. kon bu ñëwee fii itam loolu lu mat a biral la. Mm. ak sant suñu xarit yëpp. ñu mm. ngi sant ci di gërëm yëpp wasalaamaaleykum. jël kaddu ci turu du ma ne président Macky Sall ndax bu fi sëñ Cheikh du toogee moom na ko représenté ma jël ko ci turu ku ñuy wax Mansour fay mooy sunu ministre jël ko ci turu Ibrahima Ndiaye muy directeur général u Ageroute. jiital nuyoo bi sëñ Muntaxa Mbàkke xalif général des murit ñu koy ñaanal mu yàgg fi lool te wér ak njabootug sëñ Tuubaa gi yépp daral nuyoo it xalifa sëñ Masamba Mbàkke muy sañ Maam Moor waaw ñu koy ñaanal moom it yàgg wér ba lii mu nam ma da liggéeyal liggéeyal waajuram ba mu yeggalee ko jàmm ànd ceeg sëñ Cheikh Mahamadan mii nga xam ne sañ naa wax ne sama xarita sama sëriñ la sama nijaay la waaye sama xarit la ndax yàgg na noo ànd mu ñuy jàppale te lii it yàgg nañ koo mébét sëñ Cheikh sëñ Cheikh euh, monsieur le ministre sëñ Cheikh mën na ñeent wala juróomi at yoon wi ñor na ko ñor woo xam ne chaque jour da ciy wax ak man ak moom ak Cheikh Bass mais li nga wax rek lu jot rek yomb bu ñu ñëwee nag ci yoon wi moo ñu fi indi sëñ Cheikh dama bëgg mbooloo mi xam ne tombe moo waral ay gaaf waaw ndax bu ñuy wut budget pour liggéey yoon dafa am yoon wu muy jaar ñu dem ñu dem ba ñu seet ni am na yoon yu bëri yoo xam ne ni président nam mën a ko def mu dem wutali boppam financement yi ba Angleterre mu jël yoonu Daaru Karim yi boole ko ci looloo indi lii tey ba message yu fin d'année boo leen ko seetloo wax ne 2500 kilomètres de route danaa ko defar dans le cadre programme spécial de désenclavement yoonu Daaru Karim bii ci la bokk waaw nag tombé nag moo war a ay gaaf xam ngeen fi may waxee. Mhm. leneen li ci topp mooy monsieur ministre. Mhm. mooy ne yoon wi entreprise bu ñuy wax CRDC lañ ko dénk. sañ naa wax ci yéen kanamu journaliste yëpp ne la première entreprise de BTP au monde lay wax adduna la wax de CRBC la du américain du français du kenn CRBC la donc ñooñu bu ñu ñëwee di liggéey ak Sénégal ñu defar autoroute Ila Touba bi yéen ñëpp ngeen gis ko ñu xam ne financement bi am nañ ko te président bëgg na yoon yi mu naal ñu séddale ko mu gaaw mu ne mu wooñu ne ñu dénk leen ko CRBC comme ñu ngi liggéey ak waa Touba looloo fi indi CRBC ñoom it ñu nangul ñu ko. yoon wi liñ ci namm mooy dañ koy defar comme tali bu ñuy wax enrobe comme yi ñuy defar Touba tapis d'enrobé lay doon assainissement bi ànd ak moom bu ñu yeggee ba ca pénc ma ni pénc war a mel lañ koy def loolu aussi ñu ngi ciy xaar ndigalu sëñ bi nu muy xalaatee ne noonu lañ ko war a mën a aménager ba mu jekk nga xam ne bu nit ñi ñëwee ci pénc mi danañ mën a gaare danañ mën a dugg ci jumaa ji julli danañ mën a siyaare sëñ bi loolu ñi loolu it ci loolu lañ ci lañ koy déglu te aussi liñ ci namm tamit loolu aussi ñu ngi ñaan sëñ bi mu defal ñu ci ñaan bu nu parewul balaa màggalit bu màggal gi weesoo du yàgg ñu pare bu soobee yàlla loolu mooy loolu mooy loolu mooy yéene bi loolu mooy yéene bi ndax ku defar cent quarante kilomètres ci ñetti at juróomi kilomètres jaaxalu waaw vraiment te am nañ ci yaakaar trop sëñ bi loolu daal moo ñu fi indi woon di wax ne aussi lu jara a préciser mooy financement bi am na ba pare du amul complément du amul kii loo xam ne président Macky Sall moo ko jël wuti financement am ñëw teg ko ne jëlal leen ma tali yii ngeen defaral ma ko parce que maa ko diggee woon te danaa ko def bu soobee yàlla loolu daal moo ñu fi indi woon sëñ bi bu wax ji dëngee nag man a ah, waaw mais vraiment li ma indi woon daal li ñu indi mooy loolu ñii nag taxaw nanu keroog def nañu visite xool nañ yoon wi maak ñoom bërki démb chef de village ñu gungee mook Pape Niass mii ñu xool yoon wi ba pare tey jii liñ ci ñëw mooy euh, sëñ bi jox ñu ndigal ne ñu ñaanal ñu ñu tàmbali waaw te bu ñuy tàmbali dama koy wax mu leer tali moom doo ñëw ne salaamaaleykum rek teg engins yi commencé tàll di dem loolu amul fen mm-hmm. kër sax ba lañ koo defar dañ ko def ci ay plan mm-hmm. donc loolu lañuy ñu commencé ñoom suba mm-hmm. levée topographique yi lii na gudd du yàgg buñ ci jógee teg ci teg ci teg ci defar bi biñ fi ñëwee keroog maa ngi wax Pape Niass ngi wax lu ma bàyyi ma fen lu njëkk lijjanti mooy carrière ba nga wax leen fan leneen lu ñu la jënti tamit mooy ndax mën nañoo am ndox ci dëkk bi waa dëkk bi ne leen gongo donc loolu laa vraiment bëggoon a wax euh, monsieur le ministre mu leer ci kanamu ñëpp di jox nit ñi rendez aussi fii ak fan wala lu mat weer ak topp dinañ gis ne li ñu doon wax yàlla ci dinañ ci sutural bu soobee yàlla ndax ku nam ma liggéey Serigne Touba moom doo ci am xel ñaar jërëjëf salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp sunu gan ñu tedd ñi ñoo ngi leen di nuyu di leen sant bu baax di leen wax bismillah di jaarale néew yooyu yëpp nag ci sëriñ Muntaxa xalif général des mourides mi nga xam ne ku bàyyi xel bërëb bii la ku bàyyi xel yoon bii ñuy def la ba ma koy xalaat booba dara amagul bi ñuy sanc dëkk bii di ko di ko ko dafa wax ne alali boppam moo ci njëkk jox ma ko mu ñëw teg ko ci loxo sëñ Moustapha Massamba bi ñu demee ba nga xam ne ñu ngi defar jumaa ji mu ne jumaay sëñ Massamba kenn duma ca jiitu alalam tegewaat ca mu teg ko ci sama loxo ma jox ko sëriñ Moustapha kooku mooy sëriñ Mountakha te xalif général murid yépp di ku am yërmande di ku bëgg njabootam di ku bëgg njaboot sëriñ Touba gépp amu ci xaj ak seen di ku am yërmande ci ñoom di ku leen mën a taxawu ci saayir waaye mën leen taxawu ci baatin kooku mooy sëriñ Mountakha yal na ko yàlla yal na ko fi yàlla yàggal te guddal fanam te mottuli ay nisaram ak i naalam ba li mu yéenee liggéeyal maamam ju tedd ja di Seexul Xadiim mu def ko ba mu mat sëkk dara bañ caa manqué te mu ànd ko ak ñun a ah, sant daal dafa mënta weesu sant waaye kon ñu weesu sant du danañu santaale it sëriñ Sidi Mokhtar mi nga xam ne moo njëkk a nekk xale moo jiitu ko jiitu woon moom ndax moom itam am na yéene lool ci bis bi bi ñu demee ba di fi def màggal te amutu yoon dafa wax ne day nañ fexe ba siin waay yi nekkoon fii nañ fexe ba defar fële nga xam dafa bari woon suuf ñu defar ko bañ ñu mën ci àgg ne ma ne ma seetal foo foo gën a bëgg ñu defare ko ñu defar ko degam duñ mën a defar lépp ñu defar lépp moom itam ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm bu baax courant bi fi ñëw itam def na ci taxawaay bu rafet ànd ko ak Aly Ngouille Ndiaye ministre de l'énergie ci ndigalu président de la république ñoo fi def courant bi ba mu àgg wër penc ma dem ci béréb yëpp kon sëñ Sidi duñ ko mën a ñàkk fàttaliku di ñaan yàlla yokk yokk ay leeram ca sax yàlla dekkal ko ci euh, bérébu xaadimu rasul ba nga xam ne fa la nekk ci hadaratu yonente bi sallallahu alayhi yàlla na ko yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def gannaaw bu loolu wee duñu mën a ñàkk sant ñi nga xam ne jàpp nañ ci moom ak si fii muy sëriñ Moustapha sëriñ Maam Mor Masamba Anta Ceebu ndax bii nga xamee ne liggéey bi magam ju baax ja jiite woon na ko am ci taxawaay am ci doxin wu rafet moom it bi mu ñëwee fa tabarakallahu foofee mu so bàyyee woon rek fa sofe soppiwu ci dara yokk ko bu baax a baax a baax ci yaatal njaboot gi bëgg leen di leen teral waxtu wu ne daanaka bu toogee ab diir te woowu leen yan doog ñoom teral leen ba ngoon jot am lu ko neex te bu ñëwee day wax ne yéen ñii nga xam ne yéen sama doomi sëriñ yi fa ma leen teg fu kawe la fa tabarakallahu te loolu du waxam waaye day jëfama da koy jëfe waxtu wu ne kon yal na yàlla yàggal taxawaayam li mu nisara liggéeyal maamam yàlla na ko liggéey ba mu mat te kenn bañ caa mottali dara yàlla na yàlla mottali yéeneem ci njabootu ma Massamba gépp ni mu leen bëgge ak fi mu leen teg amul xajj ak seen ci njabootu sëñ Massamba kenn ku ca ne bëgg la bëgg bëgg gu dëggu ci moom la gu wér ci moom la la ko tàmbalee ci mag ña ba ci ñii fi mujj te su ma waxee mag ña mooy te tàmbalee sëriñ du May teg ci sëriñ Mahamoodan teg ci sëriñ du Faati Xëri teg ca sëriñ Saaliwu teg ca sëriñ Abdul Baaxi teg ca sëñ Moustapha sàmba ba ci moom moomu teg sëñ Abdou Salaam teg ci sëñ ma Massamba ba ci moom mii fi nekk tey kon loolu mooy taxawaayu sëriñ Maamoor Anta Sali ci njaboot bëgg la ñooñee ni solo lépp mottali ko def ko ba mu mat fa tabarakallahu loolu mooy taxawaayam yàlla na ko yàlla fayal te yàggal ko fi mm-hmm. nu nekk ci gannaawam ba li mu yéene liggéey lépp mu liggéey ku ba mu mat boobee dañoo dañoo wax ne sëriñ Moustapha dafa waxoon ne yoon wi day mat naa defar ñu wax ko Cheikh Ba ñu wax ko sëñ sëñ Sidi Mokhtar joxe ci ndigal sëñ Cheikh bas la ci jox ndigal mu jàpp ci taxaw ci ba rang-rang bii fi nekk taxawaayam moo ko fi indi ñu def ko ba mu àgg ca pénc ma ne booba jaar fi jafe na lool suuf sa bari na lool ca penc ma ay yoon weet bari nay taataa ak i ndox lool kon lañu la la la Seex Bas war a def moom def na ko ba mu mat sëkk yàlla na ko yàlla fay ci daraje lislaam léetam diiru bi nga xamee ne yàlla dogal na naa ñëw ubbi hôpital bii bi mu fi jógee war a ñëw dem Daaru Karim jaal sëriñ Moustapha jaal ko sëñ Mamor jaal ko njaboot gi dafay jaar ba noppi bay ba mu waxee ba noppi daf ne yoon bii ma jaar day mu mata daal di defar la noonu la ko wax kon mooy lii tey moo jëmbal waxam joojee mu defoon loolu kon ñu ngi ko ci sant bu baax moom président di ko ñaanal yàlla yàlla yokk guddal ay fanam te mottali ay nisram ak i naalam ci senegal ba loola weesoo Cheikh Bass moom it taxawaay boobu la ci taxaw ci yoon bi ba mel nii kon loolu mooy li sos yoon bii bi président ñëwee lii la ci teg te ji moo jëmmal loole mu waxoon di ko def kon ñu ngi koy sant ci loolu di ko gërëm ci loolu bu baax a baax ah, am am am na ku ma doon tooñ ne ma ah dañuy politique rek ma ne ko politique daal bu ko doonee ànd naa ci man li ma mën a ànd daal mooy lu nit ki wax waxi démbam ak jëfi teyam bu ñu àndee dangay xam ne loole nit ku dëggoo koy def te la mu wax lu dëggu ci moom kon loolu danaa li ko ci leeral bu baax a baax ñu xam ne njaboot tam nag yàlla dogal na ñuy benn njaboot Seex Masàmba kër bu ci nekk ak moroom ma benn lañu ñoom ñëpp am ay kilifa kenn ku ne wormaal sa kilifa teral ko sagal ko gannaaw nekk ci gannaaw sëriñ maam Mor Masam nun kon li nu war mooy nanu defoon bu njëkk nu defaat ko ba léegi mooy jàppaloo nekk benn jàppale leen ci liggéey bi taxawu leen ci ba duñ am benn tumaranke duñ am benn jaaxle lu ñu war a am jaaxle ñu mën ci testes dox ci ba loola lijjantiku loolu mooy li nu war ci ñoom lu nu mën itam ci jàppale leen ci seen nekkuwaay ak seen dunduwaay lépp ñu def ko incha allahu loolu mooy sunu yéene yàlla na ñu yàlla dimbale ba ñu mën koo def ni ñu ko bëggee ci dara jotee. Daaru Karim li mu koy jëriñ bari ndax xam nga loo xam ne dem fa dafa jafe te kenn mënu faa ñàkk a dem li mu nuy jëriñ mooy de dem talib bi yëpp mën di jaar di fa dem di ko siyaare di dellu siwaat bu wootee ñu mën a wuy ji mu yomb lool bu amee lenn loo xam ne lu ñu war a yóbbu la mbaa lu ñu war a teg lu ñu war a def ci kii jumaa comme jumaa ji ñuy tabax nii rek oto bu fay dem képp day jafe bu yoon noppee dafay daal doon lu am solo yomb lool li fi ñëw ci doj ëpp na ay deux cent deux cent tonnes wala trois cent tonnes yi doj yoo xam ne fi ñëw saabal bi duubal ko bu baax ciment bi fi ñëw duubal ko te bu fekkoon du amul yoon dem fa du yomb léeg-léeg ba mu amul da ngay dem ba ci digg bi oto euh, taxaw fi mënta jàll nga xam ne dañuy woo mbooloo mi ñu wàcce ko kon yoon bi am gi njëriñ kenn na tabli wu ko fa tabarakallahu fondation bii ñu soosal suñu bopp yor ko mu am keesu boppam di ci doxal lépp lu ñu war a doxal ci ci ci ci ci lii ñuy def fa tabarakallahu insha allahu luñ ci mën a luñ ci war a jàpp danañ ko ci jàpp lañ war a def ñoom ñu def ko kon loolu rek mooy li ci am solo jàpp nag mooy gan bu ñëwee il nga dimbale ko. il faut nga wutal ko fu mu dëkk. il nga wutal di ko toppatoo loolu mooy li ci war xëy na suñu waa nag jëf ñoom ak kii yombul waaye nag li ñu bëgg ñoom. lu mën a doon buñ ko waxee rek dana am sëñ Mahmoudane bi dafa am ay Sinuwaa yu doon defar forage fële ca Touba Mbella ba ñu ñëwee mu ne leen ah yéen yéen lu ngeen di jëfandikoo mu ne ñu xanaa kii rek ñu wax ko ñu wax ko ñu bëgg yëpp ba noppi mu mu mu mu gàddu leen bés bu ne am xar ba bañ fiy jógee. noonu la sëñ Mahmoudane doon def. te noon na ko ñàkk def. waru ko itam nag. ndax kiy liggéey day liggéey ñu di ko fay. waaye nag mën a tëraleem moo tax toujours noonu la daa doxee ci liggéey bu nekk. ñu itam buñ ko defewul noonu dañ man di leen teeral léeg-léeg di dimbale leen jàppale jafe-jafe bu ñu war a amee ñu war caa taxaw danañ ca taxaw lañ ca mën insha allahu loolu mooy li ma bëggoon a wax ci kàddu sëriñ baa ngi fii ci Daaru Karim ñu jógee danañ fa àgg mu ñaanal leen ñu jottali ko kàddu yi nga xam ne moo fa ñëw ak li ñu li ñu yéene ci liggéey bi ak ñi koy liggéey ñu mu doon lii mooy li ma bëggoon a wax ñoo ngi sant yàlla bu baax di gërëm yàlla bu baax di gërëm Seexul Xadiim mi nga xam ne mooy sunu wasiila أظن في سفري وادري بما يخالف رداء man walaahu dayxu lasi dayaqani min alwida malayka limam bid man ada likulli man dayaqani min qablu walam yatub ya wa uxra qablu hadani alhadi bijaa تقبل بي جهادي وجاء ربي بقدر عزما زاد الكريم مننا معزما يسوق لي ما سيب الانبياء ولا سن كمال سيد الله

نفى الذي لم يدني وسترى

ak pas-pas bi nga xam ne. ak nga xam ni. ànd ngeen ak seex ab mi. mi. nga xam ne mooy Touba. jiite muy téem. jiite ko. jiite ko. ak sa wax ju rafet ji. sëriñ mi nee am na ci yéen yaakaar. nee na ngeen tàmbali ko mu daal di egg. ni ko bëggee. kon nag. moo ngi ñaan. ci daraje yi. xaadimu rasul. mi santaane woon dëkk bii ca soppeem ba di di rakkam kon loolu. doy nañu ci xel mu dal. moo ngi ñaan. ci daraje sëriñ bi. ki fi andi tëli bi mu àgg ak jàmm ci na ko bëggee sëriñ bi nee na jërë ngeen jëf sant na